Sunugal 24 point net l'information à sa salaam. ñu gis la fii ci vingtième euh, promotion ISEC euh, lan moo waral sa euh, ñëw fii. waaw di nuyu élèves yi yëpp d'abord doog a nuyu professeurs yi ak directeur monsieur Diop xam ne sunuy njaboot la ñu yor muy élèves yi tey jii it euh, ñu toll ci huitième promotion bi xam ne bisu mbégte la ndax jàng ba ami diplôme euh, li nga sàkku ci xam-xam nga am ko parents yi ñëw ak mbokk yi ak xarit yi euh, ma ñëw fekk si directeur xam ne xamante nañu wëllëre la ma ñëw bokk ak yéen bis bi tey ñaanal yàlla it ñëpp ñi nga xam ne ñi tey ji am nañu ndam ndax jàng réussir ndam la yàlla ubbi leen buntu beneen euh, euh, pàcc ci seen seenu dund kon am naa ci vraiment contenté ci ñëw bi ñëw fii sa réaction ba nga bi nga def ci situation parlementaire bi ñu bëri apprécier nañ ko ci internet yi tey ñu bëri ñu ngi naan dañuy apprécier su courage bi nga waxee loo xam ne tey ji ñu bari ñu ko ragal wax loo am looy wax ci loolu ci lu gàtt. waaw xam nga parlementaire moom askan wi ñoo koy tànn Euh, tànnuñu ko ci ay diplôme tànnuñu ko ci ab juddu ci société bi la ñuy tànn député yi député yi nag bu ñu amee cursus bu tax ñu tànn leen ba ñu dem war a toogal askan wi dañu war a taxaw taxawaay boo xam ne day méngoo ak taxawal askan wi mooy lépp loo xam ne yaakaar nga ne njariñ la ci askan wi nga défendre ko pour ñu jot ci lépp luy seen loraange eh, nga dàq ko position boobu ci laa ne ndax bii mooy suma quatrième et dernière législature la laa ñëw assemblée dellu si 2007 dellu si 2012 ñëwaat ci législature bi passé kon li may wax xam naa ko assemblée nationale doxin bi mu doon dox depuis première législature ba fii nu toll changé wul presque lu tuuti mooy modifié ci règle d'organisation et de fonctionnement yi moo tax ku nekk boo ciy wax da nga ci war a wax ak tey ak dal dégg na ci benn journaliste seen benn mbokk mu ni groupe parlementaire président bi dañ koy fal juróomi million dañ ko koy fay loolu amul président groupe parlementaire soldam ak vice président assemblée ñoo tolloo ñaari million lañ leen di fay mooy seen solde ak 1000 litres carburant Moustapha Diakhaté mësta am solde bu passé ñaari million li am kay mooy ci ni ñuy doxalee assemblée nationale dafa am lu ñuy wax groupe parlementaire majorité ak ak euh, opposition amit lu ñuy wax ay non inscrits mais ñooñu ci seen bopp dañoo am fonds boo xam ni mooy fonctionnel groupe bi dañuy jënd kayit dañuy am personnel bu ñuy bu ñuy bu bu bu buy liggéey ay assistant ki ñeneen ak yeneen i dépense dépense yooyu nag juróomi million lañ doon jox groupe bu ne nga koy fonctionner di jox commission yi it xaalis ku nekk président commission jot nga xaalis tey mu mel ni li ma wax bu dee groupe parlementaire dañu jéeñ koo xam ne dafa nekkoon président groupe ne dafa détourné six cent millions kon nañu seet président groupe yi tàmm bi législature bu njëkk ba tàmbalee ba fi ñu toll ñooñu ñaata lañu détourné nañ seet président commission yi ñaata la ñu détourné ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen assemblée dafa am nu muy doxe ma man vice président assemblée nationale la mais gëm naa ne Moustapha Diakhaté demi détourné wul benn centime waxuma la ab million boo xam ne bii da koo jël te waru ko ko jël bu ko jëloon am na ñeneen ñu ci am responsabilité ndax moom yorul décaissement yi ak procédure yi président assemblée daf ci bokk caisseurs yi bokk ci trésorier bokk ci kon bu ñu détourné ci période boo xam ne ñun dañoo nekkoon ci kilifa yi assemblée six cent millions te yëguñu ko danañ wax ñi ko wax nañ ko leeral askan wi loolu de mooy coow li nga dégg assemblée man lii rek laa wax benn député jóg saaga ma wax lu ko neex joteen ci sama doom kon loolu amul lu ñuy interpréter société sénégalaise koo saaga baayam mu saaga la kenn amu fi grade boo xam da ngay saaga baayu jàmbur baayu jàmbur euh, doomam bañ laa saaga kenn amu kon loolu rek mooy problème bi beneen problème amu ci. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est